yi seetaan wasaare làmb nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci arène nationale ndaysaan Papa Dia moo ñu fi woo ndaysaan nekk xale boo xamante ni vraiment lutte traditionnelle wala lutte avec frappe mbokk yi tey la ñu woo fii ci arène national combat bi nag mu ngi dox ci diggante kan mooy bëre grand kan mooy bëre grand combat bi kaay. grand bu Yoff Ablaye Diop xam nga bi mooy ñaata combat. Ablaye Diop non xamuma de. waaw. spécial bi kan moo koy bëre. spécial bi yaa Farou Diallo ak Boy Pire. yaa wóor noo tudd. Mamadou la. Mamadou Diouf yaa wóor. jaajëf Mamadou Diouf. kon noonu la demee Pika ak Ablaye Diop Ablaye bu Yoff ñooy bëre grand combat bi ndaysaan mu doon combat boo xamante ne ay xale lañ ay combat espoir la combat la boo xamante ne ñaari xale yi ku ci nekk ëllëg mën ngaa mbokk yi noonu la ñuy demee ci biir wan leen ambiance wan leen cosaan wan leen culture wan leen lépp loo xamante ne dafay neexal lamba Adama let's go dugg dugg seesu jàmbur bi ma sàccoon delloo ko fii non père booy borom dëkk bi yaay borom dëkk bi père monument Guédiawaye père Mbow yaay monument Guédiawaye yow du liiru jaan yow yaay monument bi du liiru jaan de. waaw kay mooy bëri grand combat kooku mooy Ablaye Diop bu Yoff Alpha Ablaye ngay am da tëb Alpha Alpha démb sa mbër bi nu def sa mbëru Grand Dakar bi nu def. Bébé 10 Bébé Lane 2000. Modou Anta Bébé 10 Bébé Lane 2000 muy Bébé Babs VIP ak Tyson bu Saloum bëggante nañ la 14 la incha allah. la 14 waaw loolu leer na gisee nañ ñoom ñaar léegi Iba Mar Diop. gisante nañ. waaw le 8 la loolu. Bébé 10 Bébé Lane 2000. eh doomu day. kaay jël kaay. eh daan nañ Bébé 10 daan na ko. eh mbëru far doomu far ma jaba daan na. doomu Farba Dia daan na doomu Farba Dia ba daan na Bébé Tiis daan na Bébé Lan 2000 ay waay Bébé Lan 2000 daanu na léegi Grand Lan 2000 Bébé Lan 2000 daanu na Bébé Lan 2000 daanu na Bébé Tiis ñu dem combat Ama Dia ba arbitre souffle na Balla 3 la diggante Balla 3 Ndiol France Ndiol France mooy kan moom la Ndama France da ko doon tudd Ndiol France suñu ndey joo Balla 3 suñu càmmoñ waaw au flash moom mooy lan. ci lamb yi la woon ginnaaw moo njool. écrit Balla Gaye la waree. sama dem nañu pexe gën na saako yi France. au France non non Balla 3 moo ne écrit Balla Gaye. man ngay waxal. Balla 3 moo ne écrit Balla Gaye. ma fu mu ne. mais Balla 3 xam naa école Balla Gaye la ne. moo dëkk Pout mu ngi doon nag la dëkk. ngom flash. wala moo gàtt wala ginnaaw. bala trois ngi noonu. moo fi daanoon caatu Dakar waa suñu càmmoñ. mbére moo woon ginnaaw nii moom am flash. a moo moo njool. flash. mooy lewaatoo noonu. flash de war naa mën a flash. bi mu fi mucc moom caatu Dakar la woon jël leen ko. jël ko mu daal di koy coow. flash wàcc na waaye doxul. yéen daal léegi tëggoon. ngay dem la woon. Iba Mar Diop diggante ak Agogo ak Thierry la woon. eh jël nañ ko plat mu bañ. moom flash da koo a plaqué. bala 3 jiin ko. bala 3 bañ ko. bala 3 am na loxo ca ngeem. ko de. da koo sol de bi da koo ne ngeen xëy ko fu mu jàppee. moom flash ak bala 3. moom flash bala 3. waaye Pika noonu. ay waay le retour de mbër la de. un place la ñal tànkee rëpp na ñal tànkee rëpp na ñal tànkee rëpp na ñal bien fait da ko ëpp doole nag ah li tolloowul ngom flash daan na ball 3 am 3 dama xam fu mu jógee kon Fass la jógee waaw Fass la ball 3 daan na ah da ko ëpp doole de daal koy jël da ko ëpp doole waaw Fass ak Balla Gaye cinquième combat baa ngi noonu fils de Alioune Seye sama xel dem na ci Alioune Seye bu mag ma yàlla na ko yàlla yërëm Alioune Seye doo ngi ne toog ñu dem Amat Jaa ngi noonu diggante fils Alioune Seye fils Alioune Seye Colobane Leewtoo combat baa ngi noonu xale yaa ngay Leewtoo fils Alioune Seye suñu càmmoñ Colobane suñu ndeyjoor fils Alioune Seye Colobane Leewtoo cinquième combat fii de arène nationale jeudi ah le 14 le 14 Lamine dinaa ci ñëw jàppante na ñoom ñaar la katari sunu bés sama bés la loolu foog nga ñëw ci. Pape Ndoye Abou Niasse Boy Fadam Junior. ku ci nekk yaa ngi ne ngeen. Cheikh Diamou Milku Zo. Alliance Balde Sibor. Babsi VIP ak Tyson bu Saloum. caatu promoteur le promoteur l'avenir moo ko tëgg Jamaïcain borom Gambia borom Sénégal. doom ndey Lamine Seck la. Lamine Seck moo coordonné combat bu mag bi. Mor moo coordonné yi ci suuf. maa coordonné yi ci yi bi. MC Mass kenn du Lamine Seck borom li TV fils de Alioune Seye ak na ñoom ñaar fils de Alioune la woon ginnaaw fils de eh, ñaar bi ñoom soo jogaat nañ dama nañ fils de Alioune na ko sees na ko daan na ko na ko bàyyi jàmbur daan nga ko yóbbu ko damu daan na ko fils de Alioune Seye daan na Laso waaye kii da ko naroon a parce que soxla woon Pathé ngi noonu maa ngi nuyu Pathé Gambia fils de Alioune Seye daan Colobane Laso moo daanu fils de Alioune Seye daan fils de Alioune Seye moo Laso lan daan ay waay waa waa gëstu lamb waa gëstu lamb. du ma adversaire nee na moo la gën a soxla ndax dafa toog ci ay defet nga nga toog ciy defet mais maa ko mën maa ko dàq bëre xar mu jar boo ko jaayee mu jar boo ko jaayul mu jar la wax dama ne maa ko a bëre tey damay nangu gel bi mu lay jaayi waat tey kon tey dara du jar gel bi xam nga jar na ba pare nee na kon am na gel dama ni la gel bi dama koy nangu moom bu bu jugee ci lii day jaayoo ji. temps yi parcelle ak Pikine da ngeen a xew de. waaw parcelle Guédiawaye. kii du dara. kii jar la de moom dafa noppi silence la def waxul dara. waaw baax na. te moytul ma ko noppi. baax na nañ dem woon la li ma indi. nañ dem nañ yëmbal. sant yàlla baax a baax. Abdou Diouf directeur. waaw Abdou na saa ba yëngu daanaka. Amadou at bi daa waroon soufflé. yow mi kër la def nañ li war a def. combat mu ne préparé na ko presque ay ay ay ay weer xam la yàlla dogal li muy dogal laab moo dëgg rek laab moo dëgg xam la xale la jawli na ci buntu àdduna am xam nga yàlla dimbali ko may na ko ndam ñu ngi koy naan suñu borom def ndam li jikko xam kon nag amul ay saako yi da ko dañu waroon bëree booy bi daan na ko daan na ko jël bi seetlu amul benn werante dégg nga xam ne ñu ngi naan nag ndam li jikko. ëllëgoo Abdou Diouf na. non lamb jeex na pare na. bàyyi na bàyyi bëre. non bàyyi na. waaw non lamb day am foo xam ne boo fa tolloo xam nga mu day gën muy ñaaw waa Fass daan la ñaari yoon xam nga li war a daan daan ko kon bàyyi ko dem seen yoon jeexul quoi. Abdou Diouf ñaari at la def ci lamb. non yàgg na dama noonu kenn mënu ko na parce que boo demee 99 ba léegi yaa ci lamb xam nga yàlla dogal kon bàyyi quoi garaawul yàlla jeexul da dem seet leneen. gis benn keroog bi ko Gris 2 daane dugg na ba ci géew bi pour pour ko mais loolu yow yaa ko bañoon est-ce que nekkul loo regretté. non dama dama dama dama rus sax am na ma métti barke Serigne Babacar si wax naa ko Ibrahima may léegi Gris bu dul dara ñoo bokk sëñ Babacar Ibrahima mu nekk xam ne fu ma fekk ci lamb du mu demee dem naa ba sama kër ne def naa erreur Ibrahima may woo naa ko woo naa ko xam nga kon man maa juum maa ngi jégalu Sénégal yëpp xam ne xam nga am ku dul juum mais vraiment loolu du sama jikko xam la mais ñu ngi koy ñaanal ndam li jikko combat bi nag muy Boy Pire yàlla dafa ko ndam ci barke Yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa mu doon la waroon demee. numéro un Lac de Guiers numéro deux. combat boobu la ci wax. combat da ko dàq. combat dàq boobu combat. combat dàq ko. parce que de waalo. ndax bu ñu jox avance bi nii mooy yóbbaale ko. barke Serigne Babacar su ma jox avance bi nii mooy yóbbaale ko. roi des arènes rek la war a bëre. bu ñu ma jox avance bi nii mooy yóbbaale ko. waaw mais d' accord mais loolu du ay jaraay mais xoolal combat Gris Bordeaux combat dàq ko at naa ko bëgg te ñaari amateur am ñetti xewal nañ jox bu ñu joxe boo ma joxoon nii mooy yóbbaale ko ngeen boo ma joxoon nii mooy bàyyi la ni barke sëñ Babacar Si yàlla def jàmm merci jërëjëf pare naa pour bëre moom nañoo ñu bëre lamb la lamb la maa moom lamb la grand bu baax la de def lamb su loo xamante ne xam xaruwoo nekk champion déggoolu ma la champion la loo tax bëgg a bëre moom nañoo ñu bëre xaruwoo lu may dox di xaru déggoolu ma la maa ngi dëgg dëkku lu ma ciy ragal mu ngi nii taxaw di may dégg doo déggu la de xaw ma lu ma siy ragal. wax déggu ko lamb la lamb moo ñu boole dañoo dafa war a ñëw ñu bëri. dafa a ñëw ñu bëri man. ma ko wax la. lamb moo ñu boole liggéey ba toll fa na ma rey amul problème. waa parcelle du la ci bàyyi de. non amul problème ma la lamb la. maa ngi moom lamb la daa war a ñëw ñu leeroo. champion la moom champion la koo xool xam ne champion la. ku ne ku ne ku ne bëgg naa bëre ak moom na ñëw ñu dëgg ndeysaan xool na nga de. moom bu grand bëre ak moom ñoo ñu bëri. ragal mu dóor la aw ma lu ma siy ragal. dama ragal mu dóor la déggoo ma la man ma pa ah, ma ngi fi lu ma kii ma ma bëre ak moom wax dëgg yàlla non du ma bëre ak moom billahi moom ah, ay ñaa du léegi du at yi du at yi yëpp oui ma ma nga laaj wala ma daal billahi wallahi taala waaw kii a jël. a du moromu kii. wuy ma yàlla xam na ne du lamb. du lamb du lamb. loolu moo leen ñëw lamb ko dàq xeex moo ko dàq bëre maa la ñaa du moroomam.

Baye Tapha Tine Jali Birama Thior Boy Mboro la woon ginnaaw Baye Tapha Tine moo def dégradé bi resté papier moom it bi fi mujj ah ci surna jamee kenn la bëre moom Baye Tapha Tine bànqaas bu Kër Masar ak daan mbëru Pape Demba bi. ayca ñu dem ah allo diggante gàkku sixième combat Baye Tapha Tine Jali Birama Thior. Baye Tapha Tine Boy Mboro Rebeuss. gàkku suñu cër moo tax léeg-léeg ndax mooy ca boppam Baye Tapha Boy Mboye. Baye Tapha Tine Boy Mboye. Baye Tapha Tine Boy Mboye. ñu ngi lay liwaatoo ñoom ñaar attention. Baye Tapha Tine Boy Mboye. ñu ngi lay liwaatoo. Baye Tapha Tine. Baye Tapha Tine Boy Mboye. ñu ngi lay liwaatoo ñoom ñaar. Leewtoo waaye door nañ ko remise. Leewtoo kanamu daanu jël nañ ko. waaye Tapha Tine jël na ko. waaye Tapha Tine jël na ko. waaye Tapha Tine jël na ko. waaye Tapha Tine jël na ko. waaye Tapha Tine. soxla nañ ko teg ko ci suuf. arbitre. waaye Tapha Tine waaw teg nañ ko seet mu bañ. waaye Tapha Tine booy mooy soxla waat nañ ko tegaat ko. mbotooy mbot. waaye Tapha Tine daan na ko. waaye Tapha Tine daan na booy mooy. waaye Tapha Tine daan na booy mooy. waaye Tapha Tine daan na ko. jëlu bu booy booy ma sarax meew ya eh waa lii waay bu leen taañ mbër mi gàkku de waaw mu ngi noonu ay eh, bokeram kontaan baay tafatin tafatin tafatin booy booy Mbaye Wane lu muy réclamé. avertissement le grand Amath Dia. pour Africa Pip. arbitre soufflé na. arbitre soufflé na Baye Wally Ndiaye la wala Baye Wally ban la. Baye Wally Lébu. Baye Wally bu Maas. ña ngay demanteel baaraam. moom Africa Pip eh dal na ko. musul daanu moom Baye Wally moo daanoon bu bagam musul dégg mu ñëw 3 combats la tey day confirmé wala day daanu dina leer. Africa Pipe bàyyi ko jëlee jël na ngembu maa ngi doon yóotu ngembu moom Africa Pipe ku bëggoon na koo xaar mu bañ moom Africa Pipe Baye Waly si war a ordina Baye Waly Ndiaye wala ban Baye Waly waaye ngat ba nee na Baye Waly Ndiaye wala du Baye Waly bii Africa Pipe Baye Waly jàppante Africa Pipe ba nga rooti loxo ba di dóor Baye Waly jàppante wala dafa soufflé wala soufflé wul Baye Waly Baye Waly Africa bi eh mu doon eh, lu xew Africa bi daan na Baye Waly daan na ko eh, waaye Baye Waly Ndiaye confirmé na Baye Waly na mbëru Omar bi mbëru Mass SBT daan baa ngi waaj a sifflé avertissement pour Boy Pire. ndeysaan dox ci diggante Boy Pire Farou Diar. ñoom ñaar ku ci nekk ci nga nekk tolof tolofu làmb la. yaakaar naa su ma juumul ku ci nekk tegle na ñett defet ba ñeent. ndeysaan ñoom ñaari xale yi. ñu boole leen. ndeysaan muy Boy Pire muy Farou Diar. ñaari xale lañ yoo xamante ne ndeysaan. xale yëpp avenir lañ surtout bo surtout Farou Diar ndaanaan la ci làmb saas la bari wut rek waaye xale la boo xamante ne day dund làmb da koy dundal ndaysaan lu mu am jox na ko làmb moom Farou Diar waaye yaa ngi bëri xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb muy booy pir tolof tolof moo mënta ñàkk ci làmb rek waaye ñaari xale yaa ngi doon di lewaatoo Farou Diar moo la pir moo la féete ndijoor ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar suñu nday joor dañuy warandu instant bi na suuf faru jar suñu nday joor booy pir suñu càmmoñ ndeysaan faru jar booy pir ñaari xale yaa ngi noonu booy pir faru jar booy pir ndeysaan booy pir faru booy pir faru jar Ndaysaan Boy Pire faru jar. da ngay lewtoo Ndaysaan Boy jar. faru jar Boy Pire. Ndaysaan Boy Pire jar. ñu ngi demee latéral ñoom ñaar. Ndaysaan xoolal supporter faru jar wi. ña nga ne teg. baax ndox la ñuy raxasoo Ndaysaan Fata faru jar wi yëkkati nañu ko. loolu yëpp tiit ndeysaan benn xale bi ànd ak fer bu jar mu ngi tàllal loxo bi naan ko ndànk ndànk ndànk yàqamte wuñu ndeysaan boo gisee fer bu ni muy bëree nga xam ni combat bi am na fu mu ko toll léegi a ndoo ci rek mu fete la waaye gis nga fer ngi nii mooy pire far bu ñu ngay lewtoo ba léegi. Boy Pire jiital tànk ndijoor. Farou Diar jiital tànk ndijoor. non saan ñoom ñaar noonu ku ci nekk droite ngay mën a joxañ. doog a indi arrêt de gauche. ndeysaan ñu ngi noonu. booy Pire Farou Diar. Boy Pire Farou Diar. ndeysaan booy pir faru jar lan mooy nar a xew am na ku cokkaas léegi booy piir doo na gos duwaat léegi booy pir la door na faru jar ku bu dal atteindre objectif booy pir faru jar pir faru jar ndeysaan booy pir faru jar cokkaas la door góor na ko waaye crochet yow gauche droite xeex ba xale yi nañu. faru jar dooraat la may xeex bàkkaaru si jugee faru jar may xeex. booy pir faru jar maa ngi ko yuuxu naa ko lay xeex lan la. door na faru jar faru jar daa mel ne digaluñ ko xeex. booy pir digalu ko ko. ndaysaan booy pir faru jar booy pir ak faru jar. ndaysaan. booy pir faru jar. Piquet mooy def show noonu. ndeysaan Boy Pire ak Farou Diar ndeysaan Boy Pire Farou Diar Boy Pire Farou Diar ndeysaan Boy Pire Farou Diar Boy Pire dem noonu ba tey rek borom xaar la xeex nañ fi xeex bu neex bu jaar yoon sànq. dellu si waat nañ booy bir tokkaat na faru jar a ngay fayu moytul faru jar ñu xool moytul kuy booy bir faru sa morom mais a ngi doxaat booy bir faru bu doon maa yow doo xeex ak booy bir ndax loxo yi moo gën a jot sa loxo da xeex ak moom lay daw jiwal ak moom bëre booy pir far bu jar li ma waaw waaw ndeysaan booy pir far bu ñoom ñaar a ngi ci combat bi ba tey mooy show noonu mbokk yi lamba gi noonu may souhaiter un bon anniversaire sama xarit bi Ahmed Ba le boutiquier bi tous les temps sama bi yorel naa ko 42 000 mu ne ma su ma ko souhaité joyeux anniversaire mu may ma ko ndax yàlla am na xanaa nga may ma bor bi. yàlla na ko dund sant naa ngay xeex door na ko daw jàpp. booy bir affaire ru jar jàppante rek. fàqat dina am. plaqué dina am. boobu daal ku ci daan ma may ko Ahmed Ba sama boutique bi. booy bir far mu jaar ma ma souhaité ko Ahmed Ba. joyeux anniversaire. yaa ma gënal baax ma gerte Espagne. Ahmed Ba sama xarit bi yaa ma gënal commando Ahmed sama xarit bi yaa ma gënal kàbbu président nag moo ma la gënal Ahmed wax dëgg waaye bu dul ñooñu yaa ma gënal ñëpp. waa mais ngemb da yaa ma gënal Cheikh Bodia. da ngay liggéey yaa ma gënal Ablaye Leye. Ahmed boutique sama boutique bu baax. Ndeysaan yàlla na nga yor ay boutique yi boutique yi boutique yi boutique ndax moom Ndeysaan àdduna bi yitteem yëpp boutique la. yàlla na am ay grossiste grossiste ame doo baax na yaatu na rafet na xol des fois nag du ñàkk daaguwaale des fois ñu xuloo waaye ndeysaan du mën a ñàkk mbéj ak làmmiñ a dëkk des du ñàkk ñu laale ndeysaan booy pir par bu jar booy pir far wu jar ndeysaan ñu nga noonu Boy Pire far wu jar ndeysaan Boy Pire far wu jar tànkam bi mu gisee lu mu Boy Pire far wu jar ndeysaan far jar Boy Pire Boy far wu Boy Pire bañ na. Farou Diar a ngi xeex Farou Diar Pire dooraat na koy perkil ña ngay xeex Farou Diar Boy xeex ñoom ñaar. gos loowaaw. ñaari xale yi xeex saako bi saako yi. Farou Diar. woowaat na ko Ardo. Boy Pire nee na ko Ardo ndaysaan ma nga noonu ci ardo bi xoolal ardo bi comme Adama de ardo bi de comme Adama rek xool ko xoolal ardo bi rek muy bës xoolal maam lees ak njaab bi jël ko ay ca bandi bandi voilà la bul xeex dégg ko ma ngay aalu ndam jaral na ne maam lees ndaysaan daa bëgg xale bu soñoon ku mu indi xol ba xol maam lees ndaysaan daa baax ndaysaan gis nga conseil na xale ba pare daw Adama daw maam lees bi mun naa ci 14 milliards njaab bi njaabu bànni lay jàpp maam lees fekkee fa ci boole wala déet parcelle mbooloo maam lees a ngi noonu ndaysaan Ndeysaan du mën a ñàkk. ayca ñu mën a ñàkk ñaari xale yaa ngi noonu. ci géej gi ba léegi. arbitre bi ku nekk am nga sa morom li muy saf. ndaysaan ñoom ñaar dellu si waat nañ delloo loxoom ca baam daal. faru ja dem na ardo ba ñëwaat. tibb na suuf sëlëm. moom faru jar ndaysaan. làmb gi. faru jar booy pire. ndaysaan ñaari xale yaa ngi noon faru jar booy pire. waaw waaw xale ngi noonu ba tey du yomb ndeysaan booy pir faru booy pir. faru jar dox na ko. Bamba Kaolack ku. Kaolack Kaolack fi jëlee. door na ba. faru jar jëli na ko. du yomb faru booy pir. faru jar recevoir na ay coups yu métti. ardo. Farbuja demaat na Ardo Farbuja demaat na Ardo ndeysaan kii waalo la nekk kii parcelle mbooloo yaa ma dégg arbi baa ngi waxaat ak ñaari xale yi maa leen wax la règlement bi nangu wax la mu bañ booy pir ndeysaan ak Farbuja ndeysaan nee na leen bëri ngeen ñaari kii def na am na ñaari yoon kii am na avertissement a wax booy biir càmmoñ ginnaaw ba ndi joor jar demee ardo baa ngi noonu avertissement ndax sama combat xarit la Mouhamed Ba Ahmed Boutique sama xarit bi maa ngi koy souhaiter un bon anniversaire mbokk di ko ñaan mu dundul sans urgence sans sans ordonnance ni consultation bàyyi Binta ak Awa booba Mouhamed Ba sama xarit ndeysaan li mu nekkee ci koñ bi ñëpp xam nañ ko boo weddee laajal commando boo weddee laajal kàpp boo weddee laajal Ablaye Lay boo weddee laajal Tidiane Wat ndeysaan boo weddee laajal Fallou Ndiaye Ameth Boutique li mu nekkee ci réew mi ñëpp xam lañ ko. tekki mooy def Ameth ñu ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér. ndeysaan li ngay def ci lu baax yàlla fay la ko. waaye combat bi ñu am lépp looy def loo xamante ne safaan loola yàlla suturaal la dëggal la da ngay xeex jàppante ne xam naa ne dina ne ko ameel. su ma ko ko fayit mu yëpp ma ci yoon. ndax li may wax yëpp kenn waxuloo ma ko. waaye xarit la. ñaari xale yu jàppante nañ Farou Diar mu ngi yóotu tànk Boy Pire bari yóotu Farou Diar a ngay door wala Boy a ngay door Farou takk na ko takk na ko fi mu ko yegg sori na fi mu ko yegg sori na Farou Diar ndànk kele wala ko ko forcé lay la xel la déedéet xale yi bëri nañu genn ak Boy Pire relance day jee ci lamb relance chaque fois day jee ci lamb Boy Pire li mu maye léegi relance moo ko ci génnee ah bu doon maa yow lu mag doon def ba dee bu dekkee ba go Boy Pire bu doon maa yow du ma defaat loolu de ndeysaan comme baa baa ngi noonu ba day ñaari xale yi jàppante nañ a manœuvre dox ci kaw. mooy a waaye xale yi mën a bëre. mën a booy pire jàpp waaye. xale yee mën a bëre ñoom. ndeysaan xale yee mën a bëre. waaw bu jar booy pire la. booy pire daa bëgg a jàpp. am na lu muy toog booy pire moytul. booy pire jàpp faru jar daa muus ku faru jar xaw faru lamb waaye ndànk de ndeysaan. ndeysaan. booy pir faru jar taxabal na ko mu bañ. ndeysaan maam lees yërëm naa ko. coach Loona ci banc bi Mame Less moo toog ci banc bi Mame Less moo indi Farou Jar coach Loona moo indi Boy Pire waaye ñoom ñaar kenn lekkatul kenn naanatul xaw ma kañ la boole ñaari coach yi rek sifle ci digg géew bi boole leen naan Mame Less moo taxaw ginnaaw plaqué nañ ko war nañ ko ndomba doo ci génn doo ci génn Farou Jar doo ci génn wala déet Farou Jar génn na ci la ilaha illallah na ci maam ngay seen ma foto ko nañ ci teg la dal ni bu la dalaatee musiba dal la ilaa ñëwal laa ilaa ilaa jaral booy pir xale da nga sonn faru jar faru booy pir booy pir amaana loxo ci ñebe faru jar ak booy pir. daal di koy nengeñ xañ ko. combat bi neex na ñaari xale yi joxe nañ lu ñu mën. dañ leen di droit dañ nekk. booy pir faru jar. pour endurance yaay moom combat bi. booy pir faru jar. faru jar booy pir. ndeysaan booy pir faru jar. faru jar booy pir. booy pir faru jar. booy pir far wu jar ku am nga loxo ci ngemb ndeysaan ndegeñante nañ ñoom ñaar mel far wu jar fu mu ne nii ñaari xale yi ndegeñante nañ booy pir far wu lim jàpp ne kat am na plaqué na ko jéem naa bañ na mu bañ daal koy wéyale ndeysaan déclenché na ko mbot mu bañ lamb ju yàgg dafa métti ndeysaan métti supporter métti reporter bu doon maay faru jar damay jékki-jékki rek sàcc. métti ci arbitre. xaar bu baax ma loxo rek dóor korosam manton ci suuf. far ba tàkk booy pir bu doon maay moom ni ma jàppee dama koy gën a jege. maa ko prolonge dama koy taxabal taxabal paa bu biir <laughs> biti ngay def. teg ko ci ginnaaw tànk ba. ci poqataanu tànk ba ci ginnaaw ngay kal sa tànk rek forcé ko. far mu jar ak moytu. ndeysaan ko defee yuuxu jub fiñ ko foogewul waaye defet dafa baaxut ci mbër moo tax ñaari xale yi ku ci nekk ndeysaan xamoo fan ngay taxawee kenn xamul fu muy taxawee ndeysaan Bilal nànk rek ñaari xale yaa ngi noonu far wu jar booy pir ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu far wi jaar booy pir ndeysaan far wi booy pir yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na waayi ndeysaan far wi jaar booy pir caxabal tegal na ko seet daan na ko daan na ko daan jël ba mu benn werante booy pir daan na far wu booy pir daan na far bu jaar Boy Pire daan na Far Wu Jar jël bu amul benn benn benn benn wérante eh. lamba ngi nii daan na ko ndeysaan lamba ngi nii Far Wu Jar yaa ngi jubile oh. oh. waa Pire ngi ñibbi wala supporter Far Wu Jar yi yaa ngi ñibbi ndeysaan juguñu fi ñu taxaw jeex na seen daan na ko wala supporter Boy Pire ñu ngay génn di yuuxu ndeysaan oh defete ngi ku ne jaar na ci ma nga toog rek ndeysaan ñoom abid yaa ngay wax ak ñoom xamante ni initiative bu rafet la ndax tey ñoo xamante ni dañoo génn àdduna ñu nekkoon monument biir Géejawaay ñu tuddee leen drapeau duma laaj lan nga fiy def mais boo yëgee loolu lan lay def ci yow waa di ci am contentement ak mbégte rek bàyyi ji maa lay nuyu xam di ci am contentement ndax wax dëgg yàlla Ama Dia lii na ko géej waaye mais monde yàlla seen doole kontaan xam di ci a baax mu nekk ay journée journée yu mag yi mag yi mag yi ci am na solo keroog fii ci arène nationale da nga fay bëree kitaabu yi door ko mu daanu Alioune Seye foo jëm. waaw baa jili man ku ma jëm moom yaa ma gën a xam maa ngi ci làmb ji mbër yaa ngi ci làmb ji képp koo xam ne làmb booy maa yóbbu raisonnable rek ci kattan yaa pare naa pour bëri ñëpp. gars yi dañ ne Zoss daa bëgg a dellu ci waat ci làmb est-ce dina jël Zoss. déggoo ma la man daal maa ngi fi pour ñëpp képp koo xam ne làmb boole na ma ak yow mu raisonnable ci kattanu yàlla mu bëri ndax bëri ma yitteel. Alioune Seye est-ce que bëgg ma la làmb laay def jili képp koo xam ne yaa ngi takk ngeen fii muy yaaw jaa ba ci kaw képp koo lamb boobu dafa faa war a jugee ñiy géral lamb dañoo war a xam Alioune Seye ci ban catégorie la bokk daa ci kattanu yàlla new ma fi dootu may ma sens ma bëree ngi ci kaw ndax sama ma ko bëri dama ko maye sens kon il est temps kon gars yi may ma sens ma bëri gars yi ci kaw daa bëri Moussa Ndoye waaw bëri nañu ma Moussa Ndoye moom moo ma daanoon waaw fay ma wax bu fi nekk naan dama may lance rek ndax fu mu wax dëgg yàlla amatuma droit di laaj naan nañ ma jox diw ak nañ ma jox diw na ngi pour làmb képp koo xam ne làmb booy maa yoo rek ci kàttan yàlla ma bëreeg moom. promoteur yi ñu ngi lay contacter actuellement. non ñëwaguñ nag. ñëwaguñ naa dinañ ñëw. maa ngi xaar maa ngi xaar maa ngi xaar waaw maa ngi laal bos rek. neex na de loolu sax. loo ko loo ko jëndee jar na war ngaa xamante xale bi ci làmb la bokk man ñemee ma ko wax xale ñemee ma ko wax mag ndax du mag. ñëw ma ko xale ndax du jëf-jëfi xale muy Assane Ndiaye njiital Baol production gis ngeen keroog barki démb ba mu ñu yóbboo fële ci stade Diop Iba Mar doxoon ci diggante mbay guy gi ak maam Balla affiche boobu ni mu melaat Assane maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. Eh, Baye Djili maa ngi lay fay maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax jaajëf. barki démb arène euh, stade Diop maam maa def nga fa dóom fan nga fas yéene demaat. waaw may jaajëfal nag amateur yëpp ak waa diaspora bi gis naa ñaan yëpp képp ku ñëwoon Iba Mar maa ngi lay gërëm ndax euh, bañ defee làmb ba léegi maa ngi soog wax ni xam nga li sens la maa ngi lay ziar bu wér di rafetlu liggéey bi boy bu baax nga ku nangoo liggéey nga man su ma gisee ku nangoo liggéey rek gëm boppam dama lay boole sam bopp xale bu baax nga yàlla na la yàlla taxaw jàppale la mais di gërëm nag Sénégal yëpp ndax euh, dimanche lañ fa def. si inter mi ngi ci dëkk bi di lëmbe ba léegi ah. maa ngi gërëm Sénégal yëpp nag di gërëm diaspora bi wallaahi al dama kontaan soo gisee commentaire yi xam nga dalay lay yokk courage ñu gën a jël liggéey bi jox ko cër làmb ñoo ko moom nañ ko defar ba heure bu ñu tëggee ñëpp na waaw yaa ngi dégg nañuy jël combat yu neex di ko tëgg di ko jox amateur yi di ko jox diaspora bi tey ji am na ñoo xam ne ñu ngi si àll bi làmb rek la ñuy wettilikoo kon buñ gisee lu neex dañ koy cons dañ koy seetaan kon nan leen di nan góorgóorlu ñu ñëpp di tëgg ay événement yu neex di ko jox amateur yi ah. sa sa beneen journée bi kañ nga koy tëgg ak fan nga ko fas yéene. jëm Bawol nag Thiès laa jëm le 10 incha allah nañ def Ibamar nu ko raw la ñuy def Thiès. boole fa Kanaka. boole fa Pambay Ersan Boy Jobaas xam nga lamb dañ koy dund dañu jël biir Thiès jël Jobaas. jël euh, Tiwaawoon jël Mboro jël Mbuur jël campement boole leen benn jour. jël xale yi nga xamante ne ñoom ñooy keremu làmb ñoom la làmb am ci ñoom yaakaar ëllëg nga booleel ci secteur boobu xam nga làmb métier boo ko bëggee rek yàlla mën na la cee suturaal mais bu dimanche samedi di nga gis lu doy waar bawol ci course bi la course bi. salle de course. salle de ci kàttanu yàlla caabi yu star yi laa bëgg a dajale teg ko fii incha allah rabi jaajëf jëri di leen wax li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante Pika ak Ablaye Diop bu Yoof Ablaye Diop bu Yoof moom ngeen jàkkaar lool boo xees Pika moom moo la woon ginnaaw moo ngeen boo ngeen lu vert li ndeysaan ñu ngi doon arbitre bi laaj na Pika ba xam pare nga laaj na Ablaye Diop ba yoof ba nga. at bi sifflé na mbokk yi jeudi 8 juillet 2021. arène nationale. il est 22h08 ki ñu fi woo mooy Ama Dia production. Pika mooy grand combat bi. ak Ablaye Diop bu yoof. ña ngay leewaatoo ñaari poids lourd lañ. ndaysaan Pika moom ngeen jàkkaar lool. wala boog Pika moo la woon ginnaaw. Ablaye Diop yoof ngeen jàkkaar lool. ñaari xale yaa ngi noonu di lewaatoo di ñu xoolante ci bët ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu di xoolante ci bët cey làmb ñaari xale yaa ngi xoolante ci bët ñoom ñaar ñëpp seen taay baax na ci làmb ñoom ñaar ñëpp seen poids baax na ci làmb Piquet ak gëdd na ko da ko doon Ablaye Diop dox na ci moom xeex koy agressé da na ko taxaw na Ablaye sol na ko sol na Pika door na ko ci suuf ma ngay yokkas dina ko mbot Pika war na ko ndomba Ablaye Diop daanu na Ablaye Diop daanu na Pika daan na Ablaye Diop Pika daan na Ablaye Diop Pika daan na Ablaye Diop Pika daan na Ablaye Diop Ablaye Diop daa topp xeex bi. daan daan na Ablaye Diop. vite daan na ko. ngi noonu. Ndeysaan. yëngal gësam mu gaaw. mbokk yi noonu la demee arène nationale journal Amadia production doxoon ci diggante Pika Ndeysaan ak Ablaye Diop bu yoof Pika daan na Ablaye Diop bu yoof Ablaye dafa topp xeex bi topp xeex bi topp xeex bi. Pika jàpp ko sol ko wër ko ndomba bës ko mu def quatre appuis daan na Ablaye Diop bu Yoff benn jël bu amul benn werante mbokk yi di leen jaajëfalaat bu baax a baax di wax sama xarit tey moo xel la émission bi dama koy may Ameth boutique sama boutique bi nga xam ne lu ma ñëw lépp ko rek mu lebal ma ko di leen jox dëgg daje dig daje. ba ak Ablaye Diop incha allah jiile Adama.